dégg déggandoo kon nag yaakaar naa ni ki ñuy njëkk a le soleil le soleil la daal di njëkk àndal euh, dem nag ci li nga xam ne la yëglekaay yi xëyee tey le soleil nee 700 euh, milliards donc d'investissement euh, dem ci li nga xam ni région bu Kaffrine loolu nak ñom lañu daal di fësal ci sen xët bu njëkk ndax xam ngeen ne moom président de la république Macky Sall mi ngi nak ci ab tournée voilà donc gis ngeen ko ci nataalu kay bi lee di soleil nak ñu mën ko caa daal di gis loole yëpp nak ci ay koppar mbuub nak dana jëm euh, ci ab administrative bo xamné dañ ko taxawal foofu non dans la région de Kaolack euh, waye it euh, moom mu xamné ni kon lu jëm ci lycée d'excellence ba su lu ko dalé kon ci fin d'année bi danañ ko daldi di ñi nga xamné modi wa Kafrine waye it ci boobule conseil présidentiel gis nañ teewaayu njiital jëwriñ bu sawo Tomé ak ak principe mom nak mu fekk won li nga xamné modi moo waxtaan bi ci ay kàddu mu gis ni nak ki la Macky Sall nak ab vision dafa daal di yaatu loolu waaye ba tey ci nataalu euh, Le Soleil nag ñu daal di gis ki nga xam ne moo di Sadio Mané euh, moom nag ni ki ëllëg lay am rek fanweeru match boo xam ne euh, dana ko nag joué ki nga xam ne ak waa équipe nationale nataalam ba tey mu gën a fës ci yëglekaay bi la di Le Soleil bu noppee rek ñu daal di xoole beneen yëglekaay yaakaar Sud Quotidien euh, Sud Quotidien le Sénégal retient son souffle euh, jëm verdict de la cour de justice euh, de la CEDEAO et de la cour suprême xam ngeen nak amna am na dogal bi ñuy xaarandi nag niki tay jëm nak ci ñaari ëttu attekaay yoyé lepp nak jëm ci ciowal Ousmane Sonko ci noné nak ki nga xamné modi préfet bu département bu Dakar mom nak dafa daal di tere lépp loo dafa ñël walum circulation moto cyclette ak nak ñi nga xamné en tout cas euh, ñoy euh, yor ñaari roue gouverneur bu Dakar mom ci walam daal di téré euh, lepp lo xamné dafa jëm ci jaayub carburant liko dolé tay tey ña fan ak juróom-ñaar ci wéru novembre fan fanweeri fan ci wéru novembre Dakar dem dik ñom aussi ci seen wàll dañu daal di jël seen matukaay nak daal di ajandi lepp lo xamné dafa jëm ci dem ak dik waaye lu jëm kon ci sen réseau ñom wa Sénégal dem dik Sonko nak ci walam di sàkku ci askan bu Sénégal ngeen ñu daal di taxaw tembe

dafa daldi am solo jëm ci ay interdit yo xamné euh, jotone nañu ko def fi nga xamné modi euh, kon euh, fi ci Sénégal bokk na ci nak njaayu mburu yi ci biir boutique yi waaye yenn ci géej yo xamné ba dañ ko don téré waaye yenen yu jëm ci kon voilà ci manam jëfëndiku cigarette ci ay place publique mu melni nak lolé loolee lépp ba tey nag nit ñi dess nañu koy samanté ba tax ñu daldi def ci seen xët bu njëkk quand les interdits sont foulés au pied lolé nak mi ngi dans les colonnes du journal Sud quotidien de ce matin. waaw kon nag euh, ñu xol euh, Walf Quotidien Walf Quotidien moom it mbuub ci euh, li doon wax nak ci lañu ñu né ap vendredi de feu jëm ci manifestation kujje gi nga xamné nak wote nañ ko niki tay leader de PASTEF appel à la résidence appel à la résistance les quatre casamançais ñom ci seen wal daal di sàkku ci njiital réew mi président Macky Sall daal di loxo ki nga xamné ne Ousmane Sonko nak moy mooy yeglé kay bi nga xamné wa Walf Quotidien daal nañ koy xëy fessel ko ci ci euh, seen bu njëkk également euh, ñu mun ci gis nak euh, li nga xamné moy jafé jafé bu jëm ci ay revendication bu sudjust ne nak fonction publique et justice se renvoie la patate chaude gis ngeen nak natalu ki nga xamné moy mooy jëwriñ bi dénk justice di mom maître Aïssata talsal ci xët jëk ci xët bu njëkk bi nga xamné modi moo Walf Quotidien daal di dik ba tay ci fête d'indépendance bu ñi nga xamné ne wa Guinée Bissau mu melni ne ñak té way ki nga xamné modi président euh, de la république Macky Sall ci wetu Embalo ballot euh, na nag loo xam indil na ko njàqare tax nag ba ñi nga Walf Quotidien euh, daal di nañ ci xëy dikk ci ci bu voilà donc bu noppee ban quotidien mooy ñëw ñu xool. Mm. turbine.

Euh, ci mu amul bilan gannaaw nak ba mu Holi, di euh, euh, yenn ci ay région ak jafé jafé lañuy daldi dundé dundee mu melni nak mom président de la république doxalinam dal dafa daldi doy wax ci jamono jo xamné mi ngi diggé ay milliards té xamuñu fan la wànneen du mujjé gëtam ci élection présidentielle yu ñu nar amal atum 2024 décision cour CEDEAO ak cour suprême itam ñom nak ñew nañ ci ci lu yaatoo yaatu président Ousmane Sonko Sakuna, nak ci askan mi ngir ñu daldi euh, résistance ci euh, li nga euh, ñu manifestations am interdiction de la vente de carburant et la circulation des motocyclettes vers une opération ville morte muy dans les colonnes du journal La Tribune de ce matin

itam li nga xamné mo ñël tourner euh, président bi ñu né dafa melni euh, kuy rek rassembler les troupes ngir nak gëna tek ci toogu bi euh, ki nga xamné modi candidat ba mu daal di tànn mu war ko togal ci élection présidentielle yi di Amadou Ba lu toll nak ci ñetti téeméer ak fanwer ak juróom-ñaar ci ay milliards nak mom nee dina président nee na nag dina ko duggal fi nga xamné nak modi fofé ci voilà muy lo xamné nak suñu natango l'enquête de ce matin ñoom daal nañ koy xey ci seen xët bu njëkk Ousmane Sonko ñu mën ko ca daal di seen waaye it waxtaan bu yaatu boo xam ne uh, sekk nañ ko ak ki nga xam ne mooy Sanusi Diakité uh, di leader uh, AM Fit moom nag mi ngi sàkku ci état ngi rek ñu gën a kon xoolaat lu jëm ci wàllum liggéey bi ci ay poñ yu bëri yoo xam ne dikk na ci muy ab waxtaan boo xam ne mi ngi dans les enquêtes ci kon seen xët bu njëkk kon nag ñu àndandoo dem quotidien voilà quotidien la ñuy daal di dem ak euh, li nga ne la une à la l'attente suprême participation de Sonko à la présidentielle à la cour suprême statue sur le recours de l'État aujourd'hui euh, Sonko ci ay kàddoom mi sa nag euh, nee na ñu daal di koy teggi gis ngeen Ousmane Sonko mu nekk nag ci xëtlekaay bi di le quotidien le quotidien Macky Sall ak fin de tournée bi nga xam dina ko daal di def Bobole ba léegi nee na dina ko Modi Duanam foofee nga xam ne nag euh, euh, euh, leneen aussi mënees nañu ko gis ci journal bilé ñu xey di ko xibaar ni dal Sénégal ak li nga xam modi France dinañ gëna dal di kon dëgëral lu ñël sen coopération jëm nak ci walum armée lolu nak lañ ñu dal di xibaar tay suñu naataango yi muy le quotidien ben quotidien moy ñëw ñu xooli ki nga xam modi moo voilà yor yor la ñuy daal di dem président Ousmane Sonko ci natalu yor yor nak euh, ñu gis ko ci ak message bi nga xam ne jagleel na askan bu Sénégal muy sàkk nag euh, ci ñëpp ñoo xam euh, dañoo daal di am nakar ci li nga xam ne justice di doxee waaye képp koo xam it bëgg nga daal di rendre justice ngir nag nga daal di génn wane sa bopp muy appel de la résistance à la résistance bo xamné ci bir kasso ba mu daal di ne daal koy ci askan bu Sénégal ngir rek ñu daal ci taxaw waaye waxtaan bu ya di ab interview exclusive bo xamné abib Fall mom nak nekkoon fi nga xamné modi daf daal dina ko sék ak Uh, suñu naataango yor uh, yor ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko uh, nee na nag ki nga xam ne moo di Thiendella Fall dafa nekk koo xam ne dañ ko fa daal di teg rek ngir muy wëyee ay digal du samay kaddu nag moom moo ko daal di xamle moom Habib Fall boo xam ne nag ci ab xuus bu sori nee na kon lu jëm ci état bu Sénégal dañu bëgg a éliminer ab nit koo xam ne jàpp nañu daal ci élection yi am na chance yu rëyee rëy ngir nag daal di koy gañe ay kàddoom nag mënees ngeen ko fekk Euh, ci euh, journal bi di lo yor-yor ñu daal koy euh, xamlé tay ji manifestation bi ak li nga xamné modi yewu askan bi ak lakos nenañ ne pas rater le rendez-vous avec l'histoire ci manifestation bo xamné nak ñom tay tey daal nañu ko woté kon ñu dem libération voilà donc nous dem euh, Libération Sao bu Libération le dossier en instruction affaire Oustas Omar Sall gis ngeen ko nak un euh, Natalam, xam ne bo ba euh, kon ma nga ñu fofé donc fare ci tarixa nak dañ ko après un retour de parquet le prêcheur édifié sur son sort ce vendredi kon niki lay nous xam

naataango xey nak euh, diko daldi xibar audience jom ci walum cour suprême ce vendredi Yewwi et Lakos appel à des manifestations à travers le pays euh, Sonko euh, comme namako waxe di sàkku rek ñi nga xamne ñoo di askan bu Sénégal ñu daldi genn daldi daal tank ñi wote manifestation yoyé Juan balanko ay kàddoom ci biir journal bi le préfet bu Dakar bi nga xamne mom daldi nay téré lepp lo xamne walum circulation des deux roues niki ki tey mi ngi ci luñu mëna seen ci bi waye batay ci walum

Israël ñu wax ni euh, maanaam dañu samp laaj Israël est-il le seul fautif euh, chronique de Assane Gueye boo xam ni euh, def na ab jàngat taxaw seetlu ci xeex bi nga xam ne nag ma ngay woy boobu ba léegi ci diggante ñaari dëkk yi. ayca ñu xool beneen yëglekaay. Le témoin. Le témoin, où son euh, sort politique euh, scellé ce jour et euh, donc entre Dakar et Abuja donc vendredi du destin pour Ousmane Sonko. non la ñu ko daal di xamle taxawaay yeewi askan wi ak ñi nga ñoo di lakos ci askan bu Sénégal ngir nag ñu daal di génn Ousmane Sonko aussi daal di nañ ci ñëwaat ci le collectif des cadres de Casamance ñoom nag dañoo daal di bind ab bataaxal njiital réew mi ñoom nag la ñuy sàkku ki lenn képp la utu nak ngir euh, président bi dal di baye ki nga xamné ne Ousmane Sonko euh, mu délé ci wat ci këram loolu nak mooy gëna fess ci ci kay bi léegi di nga xamné ne euh, le témoin dal di koy xëy fësal ci xëtam bu njëkk conseil des ministres décentralisé Kaffrine aura 700 milliards entre 2024 2026 des programmes d'investissement bi nga xamné nak mom président de la république diglé nako né dal daal dana jox ay milliards yenn ci région yi nga xamné digënté barki demb démb ak tay ma nga ca nag di amalu ko tourner né dal ay kàddoom la yoo xam ni euh, xamle na ko ak ñi nga xam ne ñoo nekkee foofee ca diwaan ba ab immigration clandestine ak kon euh, ñi nga xam ne ñoom nañ ci daal di tegandi loxo foofee ca Saly euh, bokk na ci nag ab marabu ay ñoo xam ne ñoo doon yóbbu nit convoyeur ak ay rabatteur yoo xam ne teg nañ leen loxo fi nga xam ne nag moo di ca Saly Euh, ab xibaar boo xam euh, le témoin xëy na euh, daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk média retour de parquet pour Pape Sané de Walf TV di ab taskatu xabaar jamono ji nag mu amee ay jafe-jafe ak li nga xam ne moo di justice bu Sénégal voilà ñu ñëw kon ci deux minutes pour lire l'essentiel Boup, deux minutes pour lire l'essentiel euh, gis ngeen nag euh, nataalu euh, ak coowal port de Dakar attise le feu donc il met en demeure les transitaires Muntagasi, Sy nag ah, ñi nga xam ñoo di deux minutes pour lire l'essentiel daal dinañu ñëw ci coow loolu ci mu présidentiel ak Ousmane Sonko le jour de son jour point d'interrogation Lolé nag moo ca daal di gën verbatim de ce matin Mom ki nga xam Ben Makhtar Diop aussi ci euh, daal di def ab jàngat bu yaatoo yaatu jëm euh, ci wàllum volonté populaire bi nga xam ne gis na ni léeg-léeg euh, day am nag li nga xam ne moo di victoire waaye it ku jëm ci kon Ousmane Sonko ak nag situation yi nga xam ne nag moom la daal di ne benn maxta xëy na daal di ciy def ab jàngat bu yaatoo yaatu Fatick ak jeexul tournée président de la République aussi desuñu ci gannaaw en tout cas mooy daal li ñu gën a mën a jàpp ci deux minutes pour l'essentiel ñu daal di koy xëy fësal ci seen xët bu njëkk Euh, ñu dem ci critique ba tey euh, critique aussi moom dafa daal di ñëw ci euh, kon 700 milliards de francs CFA yi nga xam président Macky Sall nag jigéen na ak Kaffrine la région de Kaffrine sur la voie de l'émergence gis ngeen ko nag mbooloo bi ko daal di topp ak moom jiital réew mi ci biir kon xët yëglekaay bi li ñu daal di koy in ñu daal di def nag nataalem moom président bi mu daal di lu bu baax baax ni nga xam moy ministre maire bu Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow liggéey yi nga xam nak mo moo ngi ko fa fa doon di def moom Macky Sall nag di euh, li nga xam ne sphère administrative bi bi nga xam nak euh, kon euh, voilà fofé ci région bu Kaffrine nak la daal di ne investissement 700 milliards mo fas ko dougal fofu nak nga xam nak nag moo di Kaffrine loolu lépp nak ay xibaar yo xam suñu natango di critique yëglekaay kay xeyna ci daal di xëy fasal ci xëtam bu njëkk waaye ñu mëna gis ki nga xam ne ministre bi ñu walum jeunesse di Pape malik Ndour cadre yi nga xam nak nag

entre Dakar et Abuja natalo ki nga Ousmane Sonko aussi ko gis ci euh, critique l'info l'info de ce matin moom aussi euh, dadi di ci euh, li nga xamné ne moo walum réintégration sur les listes électorales tournant décisif euh, pour Sonko voilà ñom aussi bataille ci ciowal Sonko ak nak dogal yooyu nga xamné dina joggé cour suprême ak cour de justice de la CEDEAO gis ngeen nak natal wa ku jegi ñoo dadi gëna gën ci li nga xamné modi xëtt yeglé kay bile daal dinañ ci ñëw te na mu gën a Ousmane Sonko ak yi nga xamné niki euh, yëkkati nako ci kasso ba mu daldi nek nekk président de la république et sphère administrative de Kaffrine euh, Macky Sall veut euh, redonner à l'administration territoriale toute sa dignité voilà de nag ci inauguration sphère bobé nga xamné dinañ ko amal fi nga xamné modi, région bu Kaffrine moy nak luñu daldi mëna japp ci xët la bi la di l'info xey daldi koy fësal ci xëtam bu njëkk saw bu baaxee rek ñu xool beneen yëglekaay beneen yëglekaay li quotidien li quotidien na euh, ñëw aussi ba ci li nga xamné modi euh, tourner ba néna j'ai signé un pacte à vie avec euh, donc votre personne Kaffrine les adieux euh, d'Abdoulaye Seydou Sow avec le président de la République gis ngeen nak lool lañu daldi daal ci seen xët bu njëkk cadeau yi nga xamné mom Abdoulaye Seydou Sow yëkëti nako mu dal ci ñu daldi ci dik ci na mu gën a ci ñi nga xamné modi suñu natango li quotidien affaire des fiches de parrainage pourquoi tant d'acharnement sur Tienne de la Fall

yéenekaay bi lee di euh, lii quotidien double verdict attendu euh, sur Sonko appel à la résistance du fond euh, de sa cellule loolu it bokk na ci xibaar boo xam ne daal dinañ ko xëy fësal ñoom waa lii quotidien jërëjëf Sohna Mariama ci revue des titres bobu nga xamanteni ni indi nga ko <coughs> tay ñu jaajeufal le bu baax. merci ci kaddu yi nga xamanteni ni nga ko jëme ko ci vraiment présentation bu am solo bi nga xamanteni def nga ko xamna ñu bayila rek nga dem nak noppalu waaw donc mi ngi noonu amoon mbégte aussi bok ak yow li nga xamné modi plateau Salam de ce matin mm. tay mom nee naa na mooma Nourou ndax euh, <laughs> voilà donc euh, am mbégte dal lay lay am mbégte sa suné ak chaque vendredi donc moy ñëw di yeggé li nga xamné moy li gëna fess a fës euh, kay bi donc foog naa ne maa ngi sogo jël man sama weekend mën naa dem noppalu on te souhaite un bon week-end. merci beaucoup di la jox rendez-vous inshallah, Altiné, à partir de 9h. merci beaucoup incha ci émission Salam nga war ko sekk nag ak suñu. xarit suñu serigne muy tierno Seydou Nourou kan mbokk yi comme niñ leen ko waxee sank bi ñuy ubbi tay nak émission salam xam ngeen ko ñu ngi wara a gor gu tedd muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di njabot ci mam borom Touba di ko xamanteni ni euh, liggéey na liggéey bu am solo ci diine liggéey ko ci yoon bi nga xamante ni moom la waajuram euh, samp waye tamit liggéey ko tam ci biir société bi nga xam leppam léppam mën nañ ci tektalo waye bala ñuy sori dañuy def nag li nga xamante ne ñun ñu ngi ko tuddee

waxtane legui ndekete cousin la mbokk la lépp la inshallah kon ñu bàyyi nak ak Serigne Ibrahima sar ci xasida yi الله يا نافع فاتح درنا سر سرك وكسر خيرنا قال سيد محمد لمن بارك قال سيخ محمد لمن بار يا الله يا دافع الفتح درنا سر سرك وكسر خيرنا يا حليم الأسرار والإجهار هب لي خير الليل والنهار ونجني من البلاء واللوم نج من الضلال كل قومي ونجني من كل سر وبلاء وأولي جملة الحلاء كل بلاء ونجني من كل سر وبلاء وأولي جملة الحداء كل بلاء يا ربنا إن الورى تدرحوا لأوليائك معا يصفعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجه لنا لطفا وأمنا يا أحد آه، من تعالى لم يكن كفا عاد وجه لنا لطفا وأمنا يا أحد آه، من تعالى لم يكن كفا عاد الله حي صمد وباخي سبحانه سو كنف الواخي ونحن في كنف المنيه من كل سر وسن سنيع مستمسكين بالخياس أخمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من خالها في سمن وباء عمنه الله من البلاء jërëjëf sëriñ Ibrahima Sarr ci yëkkati boobu nga yëkkati xasida yi nga xamante ni moom la góor gu baax googu taalif xam naa dañuy ñëw nag ci ki nga xamante ni tey euh, moom la ñu war a sekk ak waxtaan waaye mbokk yi ñu xamal leen ni ñu ngi jëm ci journée culturelle bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci CICES le 25 programme boobu incha allah bu ñuy tëj dinañ ci ñëw waaye tey nag ñu war a waxtaanee ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ci euh, askanam waaye ci ci juddoom ci ay jaar-jaaram ba tey ay njabootam taxaw di def journée bu toll nii ci digg Ndakaaru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 بسال سائل قنا من كل شر يصدر من جن قبيح وبشر واشمل إلهي كلنا بالمن بسر نوح وبسر الجن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله آه، ñu نيو nuyu mbokki jullit تي جيتال jiital نيو كي صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى دي Muntaqa teg itam mbokkam mu baax mais fatiwaawan nga xam ne ñooy boroom ëtt bii mhm. di sëriñ Mbay Si man Mansuur di ko ñaanal di leen ñaanal suñ borom bàyyi leen fi ba ci kanam kanam mhm. waaye itam noonu lañuy nuyoo kilifa gi nga xam ne moom moo jiite ëtt bee ñu jógee di guy mbind di mhm. sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Sidiyal Muxtaar waaye itam di ko ñaanal moom it suñu boroom bàyyi ko fi ba mu àggale li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Mouhamadoul Amine amiin yor di nuyu itam Sëriñ Saalihu Mbàkke mi nga xam ne moom mooy xalifa Sëriñ Xaadim mhm. Awa Ba waaye itam di nuyu Sëriñ Bachiru mi nga xam ne moom moo waral suñu jotaay fii nii mhm. Sëriñ Bas Xaadim Awa Ba ak Sëriñ Jiili mu Sëriñ Abdoul Aziz ñi mhm. nga xam ne moom la àndal liggéey bi ak Sëriñ Maam Cheikh Mbàkke mi nga xam ne moom mooy yor wàllum communication ma sha allah di leen nuyu bu baax baax di la jox sa way di nuyu suñu mbokk talibé yi nga xamni mom lañ bokkal jotaay bi serigne Ibrahima sar ak serigne salihu sek comme niñ ko waxé tay ji dañ fay daje ngir fas yéene waxtaanee koo xam kenn la ci njabootuk serigne Touba. ñu koy wax Cheikh Mouhamadul Amin bara diko xamné mom moy ñettelu doomu serigne Touba. bok ak Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xamné moy tawu serigne Touba ben wajuru góor ak benn waajuru jigéen. ñoo bokk Serigne Touba ñoo bokk Soxna Aminata Lo. Mhm. topp nag ci ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne mooy ñetteelu doomu Serigne Touba. Mhm. di koo xam ne ak ñëwam ci jamono. Mhm. dafay lu historique ci yoonu murit ndax sëriñ Touba ba mu wootee yoonam woowu. ngir fas yéene yóbbu nit ñi ci suñ boroom. dafa am mbooloo moo xam ne ñoo takk woon jaayante. ànd ak moom ñu mën caa lim ku ci mel ni maam Cheikh Ibrahima Faar ku ci mel ni sëriñ Adama géey ku ci mel ni Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ du ñu mbooloo mu takk bàyyi seen lépp ànd ak sëriñ Touba ngir fas yéene am ngërëmul suñ borom sëriñ bi di leen tàggat yàlla dogal bi Cheikh Mouhamadul Amin Baara feeñee xam nga Serigne bi euh, mu ngi wootee yoon wa ca Mbàkke waaye ba mu jógee ba mu jógee Mbàkke Kajoor jaar Daaru Salaam ba ni mu tuuba yàlla def Cheikh el Amin bar mbake dal di feeñ ci at mi wax atum tashashin muy 1309. ñaar fi fan ak juroom ñet ci weeru jumaadal oula 1309 ci la Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke feeñ am na ñuy wax tamit Tachachine nga xam ne mooy tolloog bisub talaata le 29 décembre 1891. ba Cheikh Mouhamadul Amin Baara feeñee nag ci la sëriñ bi woo njaboot gépp ne leen. li ngeen fi doon wutkat sama gan gii di Mouhamadul Amin indaaleel na leen ko moom la Serigne Moussa Ka di wax ne keroog bis ba mu feeñee ca daaru duniya la daam xettali xeetam bi xayri sunuya nga xam ne mboolem ñu toppoon Serigne Touba lañ doon wut ca moom Cheikh Mouhamadul Amin Baara moom mooy gan gi nga xam ne moom moo ko indaale. est-ce que moo tax waykat woo wax ko ne ko. lawlaaka ma zafira rijaalu qasdahumu ala alqadimil karimil faa iqil haadi ne ko yow kat Cheikh Mouhamadul Amin Baara bu dul woon ak yow góor ña toppoon Serigne Touba. du ñu am lañ doon wut ci Serigne Touba. lawlaa kama zafira rijaalu qasdahumu ala alqadimil karimil faiqil haadi mu ne xawaw maam bi munaahum duuna waswasatin islaaha badruka antal mafzaul baadi ñooñu nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba kenn ku ci nekk kat ma nga am lam doon wut ci Serigne bi ca ba nga xamee ne yow sa biddiwu feeñ na ba nga xamee ne sa weer fenk na mhm. booba ca la ñu am la ñu indi kon nag bu dul woon ak yow ña toppoon Sëriñ Tuubaa duñu am la ñuy mhm. am keneen ku ko wax ci wolofal daal ne Sëriñ Baara ba mu feeñee la sëñ Bàmba woo ñu ñam mhm. ne leen gan gi kat seenug ngërëm mooy ki indi ko te kan njëkk loolee Ibra Faal la nga fa wër di maaj te naan mag ji aadoom tey du naaj yàlla def na ko sëriñ Bamba day am gan te gan googu na ab ndëggoom teg ci kaw bib jant kaay li ñu séenu ko ba sëriñ feeñee hmm. man ña xam lam ca jublu woon hmm. sëriñ Baara jar naa fonk fonkal te moytu ko hmm. dañuy wax ne bis bi mu waroon a feeñ booba dañuy dégg maam Cheikh Ibrahima ci kër gi rek maaj naan adoom tey du naaj adoom du naaj ñu ne ah Fall yaaram lan moo xewati mu ne sëriñ Bamba day am gan te gan googu jël na tànkam teg ko ci teg ko ci kaw jant bi bi maanaa daa war a am gan goo xam ne waxtu wu feeñee suñu mbooleem liñ doon wut yëpp dinañ ko am. Mm-hmm. yàlla dogal euh, bi sëñ Baara feeñee nag ñu xam lam ca lañ ca jublu woon kon kooku mooy mm-hmm. Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacke. macha allah di ko xam ne it suñ borom. Mm-hmm. subhaanahu wa taala daf koo waajal. la wàccaay bi ëpp bi bi njëkk ci ab jullit. mooy suñ borom. faggul la nga am ay waajur yu baax ndax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi yàlla def mu feeñ ci ay waajur yu baax feeñee ci سرين توبا عندما نمهم وحنا جبوب بمنة أمنا بيني تيرين بتو دلالي للحائر مني وحنا مم سرين بارا دي وحنا مم كات أمول لين لوكون يختي جمم لودل دون جيم دون دومي سرين توبا الذي لا يحمد في نفسه إلا أنه نجل هذا القطب ودقوله من زمرته نعم من ما يبغى وح دون بيني تيرين دي خملي بوبم داني كي بغى وحنا موي كينغ dara safu ko ci boppam lu dul doon gi mu doon doomi Serigne Touba ak dugg gi dugg ci njabootu Serigne Touba. Mhm. waaye yàlla def tam mu feeñ ci waajuru jigéen. Mhm. wu baax wu bokk fu baax. Mhm. di soxna Aminata Lo Almardiya di ki nga xam ne uh, moo njëkk a jaayanteeg Serigne Touba mooy ki njëkk jël ruuxam jox ko Serigne Touba di soxna Aminata di koo xam ne itam. ku bokk fu baax la ndax Serigne Moussa Ka ba mu koy ba muy tagg Serigne Modou Moustapha da ne uh, amoon nañuy jaloore soog a xam ndaam. soog a xam daam maanaam soxna Amina Tolo sëñ Modou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Amin Mbaare fi ñu bokk ñoom réew mi yàgg nañ leen a xam ci ak mbaax mhm. yàgg nañ leen a xam ci ak njub laata ñuy dajeeg Serigne Touba ndax sët lañ euh, dañoo bokk kokki mhm. di sët ci ah sëñ Ahmadou Maxtaar Ndumbe mi nga xam ne moo sañ koon kokki mhm. ba noppi itam bokku ndaam dellu nag soxna Aminata Lo moomu ñëw ñu jox ko sëriñ bi kon moom yàlla suñu borom waajal na ko tànnal ko waajur wu góor wu baax mhm. tànnal ko waajur wu jigéen wu baax itam loolu mhm. xéewal la boo xam ne suñu borom subhaana wa taala moom moo koy def mhm. te soxna Aminta Lo moom ni ko waxee moom mooy ki nga xam ne moo njëkk a jël bakkanam joxe ko ci yoonu murit ndax sëñ Tuubaa dafa mas a toog daal koy woolu moo ko soxna Awa Buso soxna Aminta Lo waajuru sëñ Moodu Mustafa ak sëñ Baara ak soxna Awa Buso waajuru sëñ Fàllu ñu toog ñoom ñett ci benn jotaay sëriñ bi ne leen suñ borom kat daf maa xamal ne dama daa soxla sama ruu gi man Ahmadou Bamba dafa soxla sama ruu waaye nag may na ma may na ma su fekkee am na ku ma mën a demal ma man fee des wéyal sama liggéey ba mu waxee loolu nag soxna Aminta Lo daan ne ko kon kay Mbàkke xamal ne da ngay des wéyal sa liggéey man mi sab jaam laa daal di jël ruuxam jox ko ko nga xam ne li loolu mën nañ lu mel ni genre fidaa u lañ ko mën a lañ ko mën a tuddee mhm. yàlla dogal ci noonu la ñàkkee bakkanam nga xam ne bu demul woon moom soxna soxna Aminata Lo mhm. kon boobaa sëriñ bi mooy dem te kon yoonu murit kon tey jii du agsi fii macha allah euh, euh, moo tax Serigne Touba daf daan wax ne ndax ñoom ñaari dañuy day day ñu am solo soxna mhm. Aminata Lo soxna Awa Bousso ci yoonu murit mhm. sëriñ bi daan na wax ne bu yowmal xiyaamee lépp lu ab géwél masa tagg ab sangam dinaa ko dinaa ko doon ab géwél tagg ko soxna Aminata Lo waaye nag bu boobaa tamit lépp lu ma fa mënal góor awa bu sa mënal na ko fa jigéen allahu eh, te ñaar ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mm-hmm. seex Cheikh Mamadou ndax waajuramu jigéen boobu yàlla dafa dogal dafa a neraw ndax juróomi mm-hmm. at rek la am ci kër Serigne Touba ñaari bant yi itam la fa am muy Mouhamadul Moustapha ak Mouhamadul Amine bi yàlla dogalee mu mu nelaw nag moom soxna Amina Tolo ci lañ mm-hmm. jël nag Cheikh Mouhamadul Amine Baara nag jox ko soxna awa bu mi nga xam ne moom mooy waajuru Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne moom moo ko moo ko yar kon loolu mënees na koo tënk ci ak ñëw Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacké macha allah ci euh, li mu wax lu am solo loolu nga xamante ni lu jiitu sax euh, muy nekk njabootu maam borom Touba bokk na foo xamante ni mbokk boole na leen ci li nga xamante ni mooy mbaax bi fi mag ñi bàyyi ba yàlla dogal nag lay xew-xew mu gane àdduna waaye indaale loo xamante ni moo doon li mag ñi doon sàkku mm-hmm. ci ki nga xamante ni mooy ku tedd kooku di maam borom Touba yàlla na yàlla dolli leeram te yàlla wuutuñu fayal ñu ko ci taxawaay bi nga xamante ni taxaw na ko ci wàllu diine ji waaye nag dama bëgg sama sama gars yi euh, yëngal tuuti plateau bi ndax mbokk taalibe yaa ngi euh, déglu te ku mel ni sisil nga xamante ni sët la ci maam borom Touba nekk ci télé bi di fi liggéey ñëw bi fii yëpp nag jaare ci moom ñu rendre ko ci moom it hommage tey ci plateau bi nga xamante ni mi ngi koy suivre en direct kon nag Serigne Saliou bismillah إن الورى تدره لأوليائك معا ليسفهم يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك مهن ليسفغوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفنا ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sakku ngërëm ci barke Seex Moustapha Mbàkke ak Serigne Ba daara ma jóg liggéeyal sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Seex Moustapha Mbàkke ak sëriñ Baara ci kàttanu Yàlla njool ma kaat la ko dar lay tàmbulee ci mbirum Sidi Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqilaayi sayidina zala alayhi lazi abda Sëriñ Baara la mu am yu nu mel sëriñ baara moo sañ a fab tampo pour yàlla aras di soppi atte moom sii lemin baara la yàlla daas a daas la yàlla daas a daas a daas ba mu ñëw mu jox yónneen ba mu jox Siidi Lamin Baara jaasi dogal jëfëkun la yàlla daas a daas a daas a daas ba mu ñëw mu jox yonel ba mu jox sidi lamin baara ba dellu daas jaasim jaba mu ñew mu jox sëriñ bamba mu jox sidi lamin baara kii wum na lambu ja ndax rakkam wa dem na ba aras wa jundulay ñuy jiijal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa péyub yàlla ya a ganaar ñëpp a ganaar ji lambu du fi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan ñëpp a ganaan ji làmb kenn du fi fel sampub sëriñ baara waa mul ko ak malakoot ak kursi yoog seeni atta benn lan ngir siidi lamin baara waa mul ko ak malakoot ak kursi yoog seeni atte benn lan ngir siidi lamin baara fadat wa yaayilu wadat fa ma yaayilu xam nañ sëriñ baara wasas ma yaayilu ki leen di jox ndigal mooy Sidi Lamine Baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett ñoo bokku taawu aras wóor na sëriñ Baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ Baara يقول سبت زيكو أحمد الأمين في جد المكين أحمد الأمين يمين القمل دقا جاخان دقلو المكان borom dëgg kéemaan sëriñ baara mooy doomi seexu bamba doomi mbër la bay sëriñ xaadim awa ba sa mbër la moom kum bëreel daan la mooy borom gi ak Mbàkke Kajoor bisu bégeem ba ku teew texe bu wóor ku dem siyaara Sëriñ Baara Mbàkke képp ku dem siyaare Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mel na ne dem nga ca bawoon sarsaara farataak sunna ngi jooy ngir xam ko Sëriñ li xaadim àqu tuwaati la fab ragoo ko farataak sunna ngi jooy ngir xam ko bay sëriñ xaadim awa ba jafaatu faati la fab ragoo ko Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké balay sa xam diine kenn dootu mel ne moom ci fonku diine dina desina amanoo la yàlla wax wa xamiloo an saalihaati alxuraan la bul xulóom kanalum jannaatum firdawsi tim nu soolan lii doy na yow muxtaar si tere sëriñ baara mbàkke day gindi muriti bamba baayu sëñ siidi muxtaar di daj ay pakk di defar ay san ba sëriñ baara mbàkke mami sëriñ bas xaadim awa ba lum la wax da koy jële ci alxuraani looloo waral ba mas safaani macha allah Serigne Saliou ci wax dëgg yàlla madda bu am solo boobu xam naa nag ma ziar si nga xamante ni mooy sunu maam bi ñuy yar jur ñu jur suñu wéy jur bu jigéen muy Adja Fatou Seen Mbuub mu tëdd foofu ca Touba ñu ziyaar ko bu baax yàlla na yàlla dolli leeram ndax moom ku ko xam-xam ko ci yoonu murit ak nag suñu wéy jur bu jigéen di Adja maam Anta Diagne ndokkeel ko ci plateau bi moom it ziyaare ko mbokk yi ñu ngi ànd ak njabootu Maam Borom waaye nekk nag ci wàccaay journée culturelle bi nga xamante ni moom la ñu war a amal le 25 fii ci CICES di ci xaar mbokku taalibe yépp kon nag ñu bàyyi euh, Serigne Ale mu ñëw ci Papa Ale mu ñëw ci li nga xamante ni moom lañ doon waxtaan waaye mu mel ni Serigne Mouhamadou Al Amin Baara mu mel ni euh, tur bi euh, am na daal lu ci nekk. waa euh, jërëjëf. Euh, mhm. sëñ Saliou Seck ci yëkkati bu am solo boobu. Mhm. waaw moom sëñ bi euh, Cheikh Mouhamadou Amine Baara. Mhm. ñeen ñi dañ koy wax Mouhamadou Lamine. ñeen ñi di wax mm, sëñ Baara. bëri ñu bari nag di laaj lan moo lan moo indi Baara gi ñu ci bëri dañ koy faral di laaj ñu ci bëri itam duñ duñ duñ bàyyi xel ne. ci tur bi la bokk ndax moom mhm. sëriñ bi sëriñ bu mag bi xam nga moom sëriñ Tuubaa dafa bokkoon ci lim jaayante woon ak boroomam mhm. mooy njabootam gépp da leen di seddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp mu leen tuddee yonent bi mhm. sëriñ Baara nag moom bi mu feeñee sëriñ bi tuddee ko Muhammadu al Aminu al Baaru ci tur bi la bokk Muhammadu mooy ku sant al aminu mooy ku ñu wóolu al baaru nag mooy ku baax ku dëggu koo xam ne dafay rafetal mm-hmm. léegi nag olof yi ci télé gi ñuy télé yenn tarkib bi moom moo tax ñenn ñi di yem ci xaaj bu njëkk bi di wax muhammadul amin mm-hmm. ñenn ñi yem ci xaaj bu mujj bi di wax mm-hmm. baara naan sëriñ baara waaye al baaru moom mooy tur bi li muy firi mooy ku baax ndax ismu faail la ismu faail la boo xam ne mu ngi jóge ci fi'l bi ñuy wax barra bii firi baax nag te alquran di wax ne wa barram bi walidayhi walam yakun jabbaaran ashiya nga xam ne baat la boo xam ne lu baax lay firi. te cosaan li moo doonoon moo doonoon baraara. moo doonoon cosaanu baat bi. waaye dafay fi'lun sulaasiyun mudaaf bu bàyyi ko ci faala te loolu atteem ci sarfu mooy da ngay jël xaraf bu mujj ba idxaam ko ci xaraf ba ko jiitu li borom nusatu sarif di wax ne ma aynuhu wa laamuhu min jinsi huwa almudaafu bi duuni labsi yakunu mudgaman ka maddal bahra abhuruhu wa muzharan yustaqra mhm. maanaam baara gi barra gi ci barara la bàyyi ko comme madd gi firi tàllal na ni mu ci madada mhm. ñu jël benn araf bi boole ko mu doon madda wala farra bii firi euh, daw na mu ngi bàyyi ci farara wala xarra bii firi sax na mu ngi bàyyi ko ci xarara mhm. léegi barra gi nag di firi baax na ci barara la jóge léegi nag ñu idgham ko mu doon barra léegi nag boo ko yóbbee ci ismu faa'il dalay jox baarun te cosaan li moo doonoon baarirun tëggu ala wasni faailun waaye moom it dafa jóge ci fi'l bi ñu ñi jàng sarfu dinañ xam li may wax dafa jóge ci ismu faail boo xam ne fi'lun mudaaf la moo tax ñu idgham ko nga xam ne firi mooy ki nga xam ne dafa baax dafa yéwén da dafa doon koo xam ne ku ku kuy mën ay waajuram bokk itam ci tur yi nga xam ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk bokkut ak nag baara gi nga xam ne fi'lu maadi la tey mhm. firi lamb na baatu arab arab mhm. am na ci moowu baara boo xam ne li muy firi mhm. mooy lamb na bi maanaam bu ñu nee baaratil bintu mooy xale bu jigéen bi kat lamb na maanaam moom mënagul am borom kër am am ñu ne baaratit <laughs> tijaaratu bi kat moom lamb na niki muy tagg jullit ñi di wax ne ñoom kat seen njaay du lamb booba ma nga naan yarjuuna tijaaratan lan tabuura tabuuru googu noonu fi mu dafa tëggoo mu daare waaye mu ngi jugee ci baara ya buuru bawran bawaaran mhm. li nga xam ne mooy firi lamb na mhm. kon am na mu baara boo xam ne moom lamb lay firi mhm. waaye ba tey bokkut ak nga xam ne ci bara la itam baraa bi nga xam ne mooy firi yatt na baraa nga xam ne ci la yi jëree seen léeb boobu di wax ne aatil xaw sa baariha maanaam jëlal yat wi mhm. nga bàyyi ko ki ko mën a yat bi maanaam mbir mu nekk rek bàyyi ko ko ko morom mhm. waaw boo ko teg bara mhm. nga xam ne sax ci lañ jëlee turu suñ borom boobu di albaari te mooy ki yett mbindee fii bi maanaam mooy ki bind waaw am itam beneen moo boo xam ne tamit baaraa la xam nga baara bara am na itam baara nga xam ne it moom la muy firi mooy rawante ci lañ jëlee almubaaraat mooy match yi nga xam ne moom mooy di am mooy mooy faral di am Euh, nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa di wax sax ca wakaana xaqan mhm. di wax ne nasran azizan yashmalul kibaara maa sigaari rudlahum baara mhm. kon dangay gis ne baarun dafa am baara am baraa am baaraa am waaye nag mhm. siñ baara fa ca turam jóge mooy ca cosaan la ba nga xam ne moom mooy firi wàllu baax di albaaru léegi nak ci wàllu way nag ñi nga xam ne dañuy faral di tagg Cheikh Mouhamadul Amin danga nga faral di gis ñuy boole moo yooyu. ngir hmm. di def li ñuy tuddee aljinaas. ci hmm. balaaxa lu ci mel ni am na naar bu doon tagg taawam ba sëñ Modou Baara di wax ne ala innal amina shayqa baara fataahu fil futuwati laa yu baara hmm. nga xam ne ñaari baara yi day ñëw ci même abyaat bi te duñ bokk li ñuy firi muy wax ne yëgal ne kat Cheikh Mouhamadul Amin Baara waxuma la moom waaye ngoneem sii rek amul kenn koo xam ne dina rawanteeg moom di Cheikh Modou Baara am keneen ko wax ne Mouhamadou Baara saabiqiina fa baara mu barrisuhum lamma xakaa huwa baara mhm. nga xam ne mu baara yu toujours da ngay da ngay dégg son bi waaye mhm. benn bu ci nekk du bokk ak moroomam la muy signifié am na itam euh, fu ñuy waxee ci abyaat di wax ne inna baara laa yu baara mhm. baara mii kat kenn du rawanteeg moom binawaalin wa sifaati am keneen koy wax ne fa xunqun yu baara misla baara mu jandalun maanaam dof bu dof bay bëri sëñ baara xam na yow moom sab jiil la ko préparé sa bopp jëmm la joo xam ne kenn du kenn du bëreeg moom wa ahbaabuhu laa bishinaani yu qaaxaaw kon ñiy faral di laaj lan moo indi baara gi loolu la li muy ni niñ niñ daggee al aminu di wax lamin noonu rek lañ daggee al baar gi di wax baara loolu moo indi moo indi baara gi mu doon nag ay tur yoo xam ne turum fonk la moom Cheikh Mouhamadul Amin moo xam Mouhamadul Amin gi la moo xam muy muy baara gi la ndax dafa am lu Sëñ Tuubaa waxoon loo xam ne moom daf koo dal سرين بمي بند نهج قضاء الحاج دان قال ابن شيخه الذي لا يحمد في نفسه سوى اسمه محمد من سرين توبا كان ماي بغا واخ تكي بغا واخ موم دارا نيخو كو تي جيمم لودو لم تودو محمد لول رك موكو نيه تي جيم جي نده بغا گم بغا يونت بي لغي لول يتام دا فاي فين تي بندوم سرين با سرين با فيرت بيم ام تي تور بي كو سرين بي فيني دوم تو وخوكو على لسان المقال واخنا كو على لسان الحال تعرابي دا أفسه من لسان المقال لي واني فونك بيم فونك تورو محمد الأمين دي بلا ما نيو تي بارغي موي داغي غيس ني قصيده يو بري بوكاي تامالي موم سيرين بارا تي محمد الأمين دي لاكاي لاكاي تامالي بامي بيند مو نوير البنيان آه نيم كو واخا يقول أحمد الأمين بن قديم يقول أحمد الأمين بن قديم خير الأنام أحمد الهادي الكريم غا غيس ني فام قصيده موي تور بي الأمين دي بامي بيند قصيده غني واخ الذهب الإبريز فم تعمل يقول أحمد الأمين الراجي من ربه قد أجمعه الحاج أهمنا يتم إن ديوان فوفو أحمد الأمين جنير في يرتبين أهمنا أمنا كجي تور بتولو لب بق جيم بق يونت بصلى الله عليه وسلم موكو موكو ورال بمي بند يتم قصيدة سفينة الأبرار يتم مدفار نون قال يقول قال محمد الأمين المكي نجل القديم الهاشمي المكي نعم فوف يتم مي إن tur bi hmm. ndax fierté bi mu ci am hmm. ndax liñ ko tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ak bëgg la moo ko waral maanaam hmm. mbir boo ko bëggee da koy faral di tudd lu bëree bëri te cosaan la fa muy dellu rek mooy bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baara gi itam baara gi itam noonu la ko fonkee woon moom Cheikh Mouhamadul Amin Baara ndax tëgg na ci ay xasiida tëgg na ci ay turu yàlla bi maanaa am na xasidaam goo xam ne day jël baara gi nga xam ne boo xam nga wonee baara mbàkke juróomi xaraf lay doon mhm. baara mbàkke xaraf bu ci nekk mu jël ci wax ci ab bayit am na xasida baara mbàkke goo xam ne mhm. mi ngi tàmbalee ci badatu bi fadlillahi shukran bilantiha mhm. lama jaa ani xayram minallahi zilluha nga xam ne baa gi la jël wax ci ab yaat boobu noonu alif gi itam mu jël ko waxaat ci benn ab yaat ba ni xasida gi jeexee muy xasida ak baara mbàkke xasida la goo xam ne ñu ci bëri miin nañ ko badatu bi fadlillahi shukran bi nantiha dama jaa ani xayran min allahi zilluha anabtu ila zil arsi zil kulli sha'ila ilahi muradi dëhra bil maahi yantaha raagi mu ne rajawtu min al mawla rajawtu min al mawla aminu mu amanan wa bil amni wal amini wan nuuri wal faha bayaatu bi hazi saa sayqi muhammadan wa awdaatuhu kulli bila fasqi lintiha kurubu zawil atbaahi wal aybi kullihim صرفها إلهي الدهر بالماهي ينتهى nga xam ne araf bu ci nekk juróomi bayit la araf bu ci nekk mu ngi ko tënkee ci Baara Mbàkke est euh, tëgg na ci itam ay ay ay turu yàlla ndax sëñ Baara euh, xam nga mboolem ñi sëriñ bi njaboote njabootee boppam moom moo ci ëpp lim bind ci wàllum xasida moom moo ci ëpp lim bind ci wàllum mhm. xasida ak li li gi di gàtt gàtt mhm. waaye ci ay turu yoo xam ne ay awraat yoo xam ne moom moo ko moo ko tëgg daan ko mhm. joxe moom moo ëpp am na ci awraat yoo xam ne ci turam la koy jëlee mhm. misaal am na ci benn wérdu bu ñuy xëy na sax loolu mbóot la yoo xam ne mag nañ dañ koy faral jëfandikoo <laughs> waa am na ci euh, bu ma ko waxee dina am ñu ko xam am na ci mhm. awraat bu siiw boo xam ne euh, baara mbàkke dama xun lañ koy wax baara mbàkke dama xun mhm. waaye du ma indi lépp waaye bokk na ca ca tur ba mooy baat bu ci nekk mu jël ci tëgg ci ab tur yàlla mu jël baagi na badiyon alif bi mu jël ko ne akramu mm-hmm. raa ji mu jël ko ne raufu mm-hmm. beneen mbàkke gi mu jël baa gi ne baax yi bi ci def mu ne karimu nga xam ne yaa badiyan yaa akramu yaa raufu yaa baax yi yaa karimu ak la nga mm-hmm. koy booleel ak yu mel noonu nga xam ne léegi bëggoon naa euh, ndax euh, bu ñuy xoolee at yi mu am ak li nga xamante ni moom jëfandiku na ko tey ci yoon bi ba nga gis ni euh, tey liggéeyam dafa yaatu moom lan moo doon particularité am ci njabootu maam borom Touba yi. waaw loolu moom mooy maan gi nga xam ne moom doon na ko moom Cheikh Mouhamadul Amin Baara. Mm-hmm. ndax euh, dafa am benn mag mu mu mës dégg mu wax ne. Mm-hmm. maanaam Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke li mu dund yëpp boo ko doon xool day mel ne day mel ni téeméeri at la yuñ tayyu ci <laughs> quarante cinq ans. ndax euh, normalement. ci uh-huh. lim lim réalisé yëpp da ngay da ngay da nga ne lii ab dundug doomu aadama kat. Mm-hmm. ci diirub ñeent fukki at. ak mhm. juróom. Mhm. waru cee mën a def lu mel dëgg la ndax ci jamono moom moo gënoon a njaboot ci njabootu Serigne Touba ba tey jii nii sax bokk na ci ñi gën a njaboot ci njabootu Serigne mhm. bokk na ci ci waaye bu mu nekk moom moom moo fi moo ci gënoon a njaboot. ci ndax moom dafa daan wax ne. ijaal iyaaliya ka misli namli bil kus bil kusri wal awsaaf bi xaqi namli yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga bëri sama njaboot comme ni nga bërilee xorondom comme ndox xorom dem ni ñuy bëree sama njaboot hmm. nañu bëree noonu waaye nag bu ñu am benn désordre nañuy organiser wu itam comme ni xorondom yi di organiser wu xam nga xorondom ak jargooj hmm. jargooñ hmm. dañoo dañoo wuute euh, bu alxuraan yi wa inna awhanal buyuuti la baytul ankabuuti law kaanu yaalamuun mooy ñoom seen njaboot day day faral di tasaaroo ñuy fàddante seen biir di lekkante ak yu demee noonu xorondom nag demeewul noonu moo tax moom suñ boroom may ko mu bokk ci ñi ëpp ak njaboot waaye da xool ci biir euh, quarante cinq ans yooyu rek li mu ci bind ci ay kaamil rek yoo xam ne moo ko bind ci loxoom mën na euh, ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett. 28 kaamil yoo xam ne moom moo ko bind ci loxoom moo ko bind ci loxoom ci diirub ñeent fukki at ak juróom. te ci biir kaamil yooyu xëy na bu ñëwee ci diggante ma alxuraan danañ ci gën a danañ ci gën a yaatal. Mm-hmm. ci biir kaamil yooyu sax am na ci boo mm-hmm. xam ne Serigne Touba moom moo ko moom moo ko tàmbale moom mu. mu àggale ko waa ndax sëriñ bi daan na faral di di def noonu mhm. loolu itam di di di wane cër bi nga xam ne mhm. am na ko ci sëriñ bi waaye cër bi nga bi nga xam ne itam am na ko ci alquranul karim kon moom mhm. sëñ baara day koo xam ne day day mel ni ku yëgoon ni daal waru fee yàgg mu ñëw lam war a def yëpp rek mu def ko ndax dane woon wa aw li nii yaa rabbi xafzan waafira fii hazihi dunia a tilka al axira yow suñ borom subhanahu wa taala maa ngi ñaan nga may mu cër bu doy sëkk fini ci aduna waye itam nga may ma cieur bu doy seuk fële ne la ci alakhirah ta non moko don doon ñaanee noonu la ko borom bi subhanahu wa taala defale kon mom dundam karama la dund la go xamne guddul ci ay at waye gudd ci ci ci maana way kat way day wax ne iza kana umrul amin qasir fa innal ali baahu atwala bu fekke ne dundu ko seigne Cheikh Mouhamadul Amin Baara de daa gàtt bu dee daa gàtt itam suñ borom guddal na ab ab jéegoom fa innal ali baahu atwala mm. kon moom Cheikh Mouhamadou ni Baara daal ak dundam ab karaama daal mm. ci noonu ñu ko euh, damay bàyyi euh, fukki at la fi am ak yu dem jooy naa borom woy man sëriñ ñeent fukki at ak mu at mat fi am soog a dem borom kàddu gi woy Baara mooy doomi soxna mi na taloo maama ngërëm ci Yàlla ak Mustafa may turandoo Baara soxna mi na taloo maama ngërëm ci yàlla ak safa may turandoo baara Cheikh Mouhamadou Lamine baara jarbaatu Cheikh Abdoulou Ndaa mbër ma moo rëy mbir waa daaru ali ma xam kan mooy Serigne baara Cheikh Mouhamadou Lamine baara koo xam ni bu ma saana tàngoor ba geesu wetam lu mu xool mu takk njareet mooy sëriñ baara koo xam ne kii bu ma war naaru boor di dawal faburu nga denc ci poosam mooy sëriñ baara ma feeñal fi sëriñ baara mbàkke moo baax ko def buur borom na koy xam Cheikh mohammed lamin Bara la jël na diiwaan do ko ba taxawaayam ba doy na man keroog bis ba mu feeñee ci dar dunya Serigne Touba xet li xetam bi xayri surya ka ak Bawal lu mas Jolof na ngeen jébbalu jébbal ko seni ngannaay bu len ñetti jéego ndaxte ñaamul yoon sañ-sañ ba ca baayam lu ca seen yoon nuroo tax te mooy mbir si ñel du am saaw déggu li ma wax xam ni sëriñ baara janaaw la day naaw nee naa yàlla nu nandal bi jaay maamu te mandal nu ci baatin ne leen maamin Seex Moodu Baara baleere di tab yaras mu taawu guy mindu mooy taawub Sëriñ di tab yaras bu taaw gi bindu mooy taaw Sëriñ Baara bam ne dagaj la rakam ju baax ja daal di taxaw yàlla ko sut ba mu ñëw te mooy Sëriñ Abdul Aziz Baara Cheikh Abdul Aziz Baara am nay ngërëm soog a ñëw am nay ngërëm soog a dem yàlla ko foog mu ñëw mooy Serigne Abdoul Aziz Bara siyaare naa ko Cheikh Sidil Muxtaar sama waa moom la yàlla tabal noom bay sëriñ baara seex sabaabati lay yal na saw fan gudd nga sax ci jàmm ko yiw ba mboolem kër njabootu baara jërëjëf sëriñ Ibrahima Sarr xam naa ñu ziar bu baax taa soxna Diop hmm. mu ngi may message di ma wax euh,